ay ca doore ko nguurug Sénégal si tribune yéene kaay seen ak tële lan wane laa la wax nii seen ak tële lan wane ci inondation bi taw mi mel ni kon kuy soog a door gox yu sa bëri askan waa ngay xuus yéene kaay groupe des médias damay laaj dong ni damay laaj rek nag ani 750 milliards ñu wax ne kon dépensé woon nañu ko ci mbënd mi ngir ak saafara wala saafara gu jur lay niru ay milliards yu ñu dépensé ngir jële fi inondation waaye tous nag tey jii la ndox mi gën a bari kon ci gox yi tribune yéene kaay nii xanaa bu milliards yooyee deful effet mesure yi war naa mën a def effet ba jëloon warees naa mën a def effet xanaa wala foofu du arrêt l'observateur ni ko rombal foofu du arrêt mesure yooyee deful effet benn yoon soo ko weddee doxantul ba sa Touba gaañaa ngay xuus laa la wax nii seeni bagage mu ngay tëmb la ñu dencoon nit dund kon nag ndox mi yóbbu na ko foo jaar amatu fa ndoxum taw mi fatt na fépp nag direct news ne kon damay laaj rek de damay laaj mbaadu kon màggalug ren ji dana yomb direct news ne damay laaj rek de aw laaj la bu ma samp sëriñ Bass Abdou Khadre koy tontu nee na ko déet bul tooñ de yootul vox populi teg ca 24 kaay porte parole bu xalif bi nee leen loo leen wax nguur gi tooñ ko engagement yi mu jëloon bu doon téeméer de juróom ñeent fukki ak ñaari maanaam 92 daanaka nag satisfaire na ko kon mbégte mi la am laa la wax ci ngornement bi sécurité bi nee nañ daañ ci taxaw 4500 policiers ko fi andi 2500 su ay leen fi andi dispositif sanitaire bi nag ñu ne yemb na Senelec ñu ne kàddu yooyu ñu yëkkati dalal na xel ya yoon yu sa bari kon defaraat nañu ko Serigne Bass Abdou Khadre nii su dee taw mi na kon màggal gi moo tombeex nawet gi gi yaakaar naa ne ku dul yàlla mënu koo téye sëriñ Ousmane Mbacke ne ko wax nga dëgg nag dëgg rek nga wax yootu l'info sëriñ Ousmane Mbacke moo nga cay xam ne nii parlu googee nag moom la ñu waroon gën a def ci liggéey bi liggéey bi nga xam ne sumboon nañu ko retard bi ñu ci nemmeeku bu ci amuloon jàppale ne kon ndoxum taw du toll fi mu toll ni fii ci diwaanu Touba ñu wax ko rek te dee dama ne kon Touba laa la wax du inondé nit ñi duñu xuus ka xuus jàll yegg Touba moo di Khalifa Sall ka doxalal nitu jàmm nga loolu la sénégalais yëpp gis ci yow te loolu daal dalal na xel ci yow foo fekk ak fitna yaa ngi say dox jàmm di sa wax jàmm ku la gis say bañ lay njëkk a gis say kàddu gis nañu da nga koy odd woote woo fitna benn yoon kon xalifa doxalal ndax tiitu ñu ci yow benn yoon doxalal laa la wax am nga sama ngërëm am nga sama ñaan deux minutes pour lire l'essentiel nii lii xalif bi wax ku mu dalul sa xel de kon sab xel dootul dal xalifa mbaadu kon xalif bi dafa taal say lamp mbaadu 2024 gii yaa aye wal fu ko di ñeen nii aye googee de xëccoo ga bari na sa lool suñu politiciens yi fu mu nekk ni wàcc nañu si terrain bi Idrissa sekk ndaama xalifa Sall borom mutti yéene yi Abdourahmane Diouf borom awale Malick Gakou borom grand baaba Babacar joob dama ne ñooñeex ña sa des fu mu nekk ni xuus nañu de wàcc ñu si mbedd mi fekk jaaskan wi laa la wax nii ña ngay buuxante ci ay tournée ay visite de proximité le point actu ne gaa ñaa ngay def lu buggaan ngi dani miin laa la wax ni tournée nationale sa la dëkk bugaan ngay dani ma Moussa Diop moom rek mooy politicien bi gën a jige askan wi buy neex moom la ñuy gis buy naqadi moom la ñuy gis le point actu mooy wax de nee na bugaan ngay dani mu ngay rëdd aw yoonam de Abdou Khadir ci yéene kaay bi nañu ko nangu rek bugaan ngay dani mooy politicien bi gën a jige askan wi politicien bi nga xam ne moo gën a miin dëkku kaaw gi laa la wax nii politicien boo xam ne nii mayul dara président Macky Sall mën naa fay prix de ah naa fay prix nag ñu dëgmal li campagne am Mamadou Sy su réussir campagne am boobee rek day am dara dana def surprise alors ci présidentielle li ñu dëgmal ndax kat askan wi gën a jigee gën a yey na te buggaan mii la gis saa su ne seen pegg ma xaarul ba campagne bi dikk mu doog a wàcc waaye nag su dee électorat bu Ousmane Sonko la teg bët biyee boobu mu xam ne du yomb nag kon gay doxalal bul geessu ndax jël électorat bu Ousmane Sonko bi yombul la yombul kay le quotidien yéene kay nee nee na Malick Ndiaye mii ak Ayib Daffé nee ñu Diallo Diop la mu wax xamu ko ñun wutuñu benn yoon plan na ñu ko xamee noonu benn plan la ñu am mooy sunu A B C ba Z muy pros ñu xamee ko noonu nag mooy sunu candidat candidat bu parti démocratique sénégalais Sud Quotidien nee na mooy Karim Meïssa Wade coow topp na ko de dama ne coow topp na ko ak bokkam ci élection yi wóoragul benn yoon ndax coowal double nationalité bi faw nag mu tànn benn waaw jël bu France teg ne rek nag yootu bu Sénégal fii nga xam ne fii lay déggee Farawaad Ndiak Alkalima Samba bu ko déggee rek fii ci réewum Sénégal la kon teg bu France war na koo mën yomb jël bu Sénégal ña génne Sénégal kër ngir jéebaane président Macky Sall moo di waa F24 gannaaw Juan na waa f yekk nañu lu mel ni xeme président Macky Sall sa ONU bureau bu haut commissariat des nations unies bu droits humains la ñu dem laa la fëgg buntu ba dugg lépp lu ñu xamal président Macky Sall lu baax dañu ko jël denc yebbi si table ji nag lépp lu ñu ko xamal si lu bon laa la wax nii tribune yéene kaay nii waa président Macky Sall moomee looy xaar ani looy xaar ngir tànn sa candidat lii rekk moom a yéem ba fii nag benn bokk yaakaar amagul candidat Habib ñaani xaar moom du ko def man damaa pare man ak samay militant dajale nañu ko lu toll si junni si ay signature mille laa la wax di ay signature la ñu dajale lépp mi ngi nii ma téye xanaa kon du maa pare le point nii kii pare kay mi ngi Bambey daam ngoom lay wuyoo le lion de Bambey xale baa ngi nii laa la wax waa Bambey nee nañu neexul ba neex waaye daam ngoom bi ma mu dikkee ci arène politique bi ba léegi yóbbu na mag ñëpp à la retraite màggati yi nekkoon Bambey doon balbal lu foog na ñoo ko moom daam ngoom dafa dikk yóbbu leen à la retraite gars yi laaj ma lu ñu koy woowee xale yi nee nañu ko le lion de Bambey a ngi la ñu pare ne benn match final laa la wax ni sa Bambey la mu mobiliser amatul moom daam ngoom le lion de Bambey leader politique la mouvance présidentielle muy mag ña xale ya nee nañ ko yow rek la ñuy topp yaay sunu yaakaaru ëllëg bamba yu ëllëg la de loo wax loolu la foo nekk fa lañu lay fekk bambay bu yees ak daam goom lii rek la ñu wax nag xaley bambay ñooy wax de magi bambay ñooy wax yootul le point xale ya ña ngi say yóbbante kàddu président Macky Sall nee nañu ko boo bëggee dara bambay gii de jàppal ne buntu bi kenn rek la muy daam goom la lion de bambay moom rek la ñuy a Moustapha ah kay nee na gannaaw Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke da ngay wàññi benn Serigne Mouhamadou Moustapha nga teg ñaar Cheikh Abdou Khadre Mbacke imaamu imaam yi ñett ñu ne Cheikh Mouhamadou Fadilou Mbacke le choix du disciple à la place d'un fils ñeent nga ne Cheikh Abdou Ahad Mbacké l'espoir de Serigne Touba kii lañ daan dàkkantaleex ñàkk caaxaan laa la wax ni Cheikh Sidi Al Muxtaar Mbacké daa di dikk daa di dajale këri diine yi laa la wax ni ñëpp jubboo Serigne Saliou Mbacké kii mooy la suuf suufi yaakaaru ndaw ñi nekkoon seen xarit mu laax El Hadji Mouhamadou Lamine Bara Mbacké daa di dikk moom ci boppam moo ubbil jaal bi sët ba tey ji ñu dikk sunu xalif bu tedd bi laa la wax Al Muntaxa borom mi xalif bi ci reeju neex ji Serigne Muntaxa Mbacké ma yootu suñu làmb maa nga ca làmba ja Modou Lo Ama Baldé Tapha Tine dama ne rendez-vous bi le 9 septembre lay doon fan ci ca Gambie face à face bu ma lay doon